jublu la ñu wax de yàlla xol lay fay ak yéen jëf ju baax réew mi am na dañoo nar a jël seen taayu ko bara de lan hmm, géej a waa man de xam naa ne six heures du matin ca xew ma la may fekk fa laay solee yére ni ma ànd ak kan nag sponsor baay Modou Massa Saak Massa Yer Ndaak tailleur yi bu leen fi baay Modou kan fekkee ma ne doo juddu jéeri doo badantaan fii nga dëkk ba ñuy waaj a dem fekk na nga dem kenn du leen bala sa maama daan jàpp jaam ñiy maye li maam ba may sa maam ku mu ko may sa maam nga riis sa maama ci gaañi te yaa man ci jeeg ji sa baaye mënoon ca jeeg ja شيري خاص صغنطي خاص شيري خاص جو بني اسو بولا سالا كو ينغا بولا لينا رباي وسيب اه ما من جابناني لولو خنا جراتول ليرال شيخنا شيخ خنا ki ñuy weddil mu toog te weddiwul kon kay lañ ko waxal am na ñaar ke moom yokk nañ ca lañ wax wala wàññi nañ waaye koy loolu ko ne boobu moom jaratul sori euh, ah, yokk bi mooy ah, ko ci di xanaa ci benn ci benn côté jigéen moom man dama jàpp ni lu ko waay defal xeeb nga ko ndax jigéen moom la Serigne si Amady Tidiane si almaxtum wax moo ci nekk nee na boo ko joxoon alal ji ci àdduna yëpp taxul nga jëndu ko ndax yàlla mi ko bind rek moo ko mën a teral kon da ngay def fa la nga mën ak la nga yéene te xëy na suñu yéene lañ defee waaye ëppoon na loolu sax ci gàttal mais comme li ci dégg nag Cheikh loolu lañ ci dégg daal man foofu laa ci mën a yuqaraat kon daal bi nga koy génne euh, teral ko la mais du du dara du question bës wala la waaw déggoo ma ni la comme yàlla seede na ko gis nga ni ko gisee ci média bi nii barke yonent bi noonu laa ko gisee. pare ru or bu ne mut lañ jox sama yaay ëpp na ak 6 millions ku mëna def ya na la sey bi di bàcc bi sempre buur ngalam lay la kay da daa ëpp na ëpp na cet cet daf cet daf cet daf cet xalé erreur waaw sa yaay la ñaanal do xalé buy sawlal e xol yëpp sedd bay mo du xolam sedd goy e na sinab bi duggu ta saareel len ko xalé bi topp na rew mi waaye kenn du def job oh ta pas garder la ligne <laughs> sedd nekk frigo ngi sama biir xol nekk sama xale baa ngi xale mu xale teg xale réglé xale téye boppam 6 millions pali lu or jafe na ak si réew mi tool nii 6 <laughs> millions lañ na laalal nii de waa doo siggi xool vidéo bi sax may vidéo bi xorom tuuti xorom rek may ko tuuti xorom rek waaw di kontaan xew bi tey dama kontaan ndax tey ki naan sama papa dafa xam Abdoulaye Diop xaas sumul nekk sama jigéen nekk maa moom ba may xam sumul kenn xamul sumul ma dimbal ndey soog a ñëw kon xew mu ta ñàkk foo maam Abdoulaye xaas tey sama papa sama xew kon kontaan tey si bi tey mu ta ñàkk Ablaye Diop xale nga di kër may ma may na ma kër

kuy wut jabar bu ko coppati ne ko riix ci digg ba na rafet ni sama bos na rafet na rafet ni sama yëf jongoma ràññee na Sumbulu soy fonde soy <laughs> Wali dama koy bëgg suri yi dama koy bëgg dama koy bëgg Lekk nah. fine, fine. Lagi form, sebeli, lagi form kan apa nak bertanya? Bawa belak. Eh, apa yang kamu sahalah? Apa yang kamu sahalah? Apa yang kamu sahalah? Apa yang kamu sahalah? tubaarikàlla macha allah lu ñu fànn kenn du ko jeex tubaarikàlla laf cat macha allah nga tëdd sa kër jëkkër suba lu bàcc li Ablaye Diop xaas njëgënd la 1 million tubaarikàlla jël 100000 jox say bàjjen tubaarikàlla ndax kontaan ak mbégte raw saa su man kenn du ci taral xale. tubaarikàlla boo defoo nee na maa nga dem ci auberge yi ngeen politique ko du demee nii waaye fii nga tëddee fi la la fekk say njëkkale yëkkati say bàjjen di soog a ñëw tubaarikàlla laf cat macha allah ku doon bëgg a ree na dem masala sëñ Abdoulaye Diop xaas mariage bu toll nii euh, boo xam na que adduna bi ciy coow fu ne di ci wax te déggu man bi ma ciy dégg yëpp yàlla na sëy bi barkeel yàlla ci yàlla def jàmm yàlla ci yàlla def salaam loolu la kilifa yi diine yi ñaan loolu la kilifa yu fajkat yi ñaankat yi ñaan lool la artistes yi ñaan loolu la ñuy dox ci mbedd ñaan ñi la xamul sax loolu la ñaan ndax tegal naa la vocal yu bari ñoo xam ne que mosuñu wax ak yow. te ñaan yéen i ñaan day mel ne seen. Mm-hmm. bu ñu bokkal ndey ak baay. ñoo xew la yéen boobu lan ngay sant. Cheikh dañ koy sant yàlla bu baax a baax.